l'actu sur King FM. Mesdames, et Messieurs, bonjour. Voici les brèves que nous euh, démarrons avec Seydina Fall Bougazeli qui va être déféré au parquet ce vendredi. Le responsable APR a été arrêté mercredi dernier puis gardé à vue à la section recherche de la gendarmerie de Koloban. C'est donc dans l'affaire présumée de faux billets de banque. L'État du Sénégal euh, décaisse 200 milliards de francs CFA environ pour euh, sécuriser ses installations gazières et pétrolières. Un dispositif militaire composé de patrouilles et de missiles que l'État va acquérir auprès de la des sociétés françaises. Les accords de vente ont été signés lors de la visite d'Edouard Philippe, Premier ministre français, à Dakar. Les bacheliers de l'année 2019 vont connaître sous peu leur lieu d'affectation. Euh, du moins si l'on se fie au ministre de l'Enseignement supérieur. Euh, Cher assure que tous les bacheliers seront orientés d'ici 15 jours. Il a précisé que euh, pour l'instant, donc 40 300 bacheliers sont déjà, orientés sur l'international en Israël. Israël. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a été mis en examen pour corruption, escroquerie et abus de confiance. Cette annonce a été faite par la chaîne de télévision française. France 24, sport, Coupe du monde beach soccer au Paraguay. Les Lions entrent en lice aujourd'hui à 19h15. Le Sénégal donc joue contre la Russie pour la musique du jour. On est vendredi, nous vous proposons Wali Balagosek dans son titre intitulé Thank You Allah. Dans ce single sorti le 17 mai 2018, le marraine remercie le bon Dieu. De ses brèves, c'est dans un instant. yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee ak seydi Seydina Fall Bougazelli mi nga xam tey jii dinañ ko déféré ca parquet ba moom mi nga xam nag responsable la ci euh, parti euh, parti bi li di APR moom nag àllarba bi weesu lañ ko tegoon loxo ba noppi def ko garde à vue ca section recherche gendarmerie ba nekk ca Colobane leen koy toppee nag moo di euh, mbirum phobie di xaalis bu baaxul nguurug Sénégal dina génne ci gafam ñaari téeméeri milliards ci xaalisu CFA loolee nag ngir daal di gën Ah, bàyyi xel ay installation gazière ak pétrolière ah, loolu nag dinañ ko daal di ah, def teg ci ab dispositif militaire boo xam si ñooy saytu mbir mu ni mel l'état état bu Sénégal di nguruk Sénégal nag dina daal di saytu mbir mu ni mel ci kanamu société yu nekk ci réewum France accord boobee kon ko daal di xaatim ni ki tukki nemmeeku bi fi Philippe Edouard mi nekk ilimaani jëwrin bu réewum France doon amal fii nii ci diwaanu Dakar bachelier yi nga xam si maanaam ñi am bat ci atum 2019 bi jàppale ni dinañ leen affecté ñoom ñëpp ci lu yàggatul dara loolee ki ko moo di euh, jëwriñ ci yore wàllu enseignement supérieur di Cheikh omar Anne mu yok ci ni kon feek fukki fan ak juróom rek ñepp dinañ leen dal di euh, affecté te ba fi sax dal nañuy euh, jot ñi nga xam si ñoo di seen ay affectation lu tollu ci ñenti wala sax fanweri junni ci ay étudiants yo xam si kon dal dinañ dinañuy jot seen ay affectation xibaar yi ci dendu Afrique Israël jàpp leen ni kon euh, limaani jëwrin yo di euh, Benjamin Netanyahu moom nag dal nañ koy mise en examen di ko daal di euh, tuumal mbirum corruption di guerre escroquerie ak abus de confiance loolee nag ab xibaaral boo xam si ñu ngi ko jëlee ci chaîne de télévision française bi la di France 24 tàggat yaram coupe du monde bis soko bi nga xam si démb la tàmbali fële ca Paraguay gayndeew Sénégal nag tey ji la ñuy laale ñoom bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ba tegal fukki simili ak juróom Sénégal Russie la cay ah, dajel musique la ni jeexale tënku xibaar yi tey la aljuma ñu àndi leen kon wayu Wally Ballago Seck bi mu duppee thank you Allah di kon way woo xam si mi ngi génnoon ah, weeru mai atum 2018 faramaaren bi kon da ciy sant yàlla ñu teewlu tënkaloon ci ay xibaar yeneen i xibaar 8h30 lay doon waaye léegi-léegi Al Ndiaye ak équipe bam ñooy woyal The Morning King c'était l'essentiel de l'actualité mesdames et messieurs